daa leen courant bi yàgg naa leen ko wax da nga am taw xaas la ñu am ñoom ñun fekk nekk de nekk ci liggéey xas nekk ci xas ne xaas la ñu am xaas la am bu wér wér ne tawe ngeen mënu ci sàngu waaye nag bale xaas xaas ngeen am waxuma taw feex taw ku bëgg sëñ Tuubaa am waaye yéen xaas ngeen am waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu su ko defee kon mu mel ni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 waala ali ak ñoñam ña osama bi ak saabam yëpp wasalama tamu dolli góolu tasliman dolli góolu xaasa lii nag muy xaside gii minal xaq mi ngi ci yàlla muy xaq muy dëgg al mubiin gadaa ji biir dégg nga mu ne maa ngi tàmbali xaside gi ci tur yàlla yàlla muy xéewalaa kon ñëpp céer na tey ajéram ko soob ci ci turam daal ci lay tàmbali xaside gi maa ngi ñaan yàlla nag mu julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad yal na yàlla julli ci waa kër yonent bi sallallahu alayhi wasallam julli ci ay saxaabaam yépp te dolli ko musal dolli ko kóllite mu ne xasidi gi nag mu ngi tukkee ci yàlla mi nga xam ne xaqil mu bin la dëgg gu biir dëgg gu leer kooku mooy yàlla bu ñu nee dëgg gu leer moo yàlla rek moo tax mu ne xaasa lii kat muy xasidi gi minal xaq mi ngi tukkee ci yàlla muy xaq muy dëgg al mu bin garaaji leer ji biir dëgg gu leer kooku mooy yàlla dëgg moom genn rek la te ci yàlla bay ko moo ñëw ci yonent bi mooy alquran waaye lépp benn la rek moo da nga jàng Sëriñ Tuubaa min al xaq ja al xaq lil xaq fii sax bi fekk benn dëgg rek la. léegi nag xaasaa min al mu biin la tënkee xasidi mu jël xaagu njëkk gi mu xal kubéer gi. ne xaddama màbbu na rabbiya sama borom. bina aduri tabaxuk sama lor kon xaasaa min al mu biin la. wajaada tamit lii ñal ma bisiri ci mbóot ma da ànd ko ngërëmam. lum la wax ci xasidi rek. ci yàlla la bay ko moo ko ko wax loo moo tax mu tënki ko xasaa min al-qulubin bu ci njëkk nga xam ne ci yàlla bay ko mooy yàlla nee na ko màbbu naa sa tabaxug lor bépp lor goo xam ne ñu ngi la ko doon lor mbaa mu nekk ci yow bu doon ab tabax màbb naa ko bis ni tey bis tey may naa la mbóot mboot moo xam ne yow kese yaa koy xam te yow rek yaa koy am waaye bis tey làq nga sama ngërëm moo tax mu ne xaddama màbbu na rab rabbi sama borom bi naa adduree tabaxu sama lor tabax lay nekk yàlla moo ko mabal boppam amatuma benn lor ci gàttal wajaada may na lii ñel ma bi siri mbóot maa di da ànd ko ngërëm yàlla may noo mbóot ba noppi gërëm ma ca askuruhu danaa ko sant a dëxra jamono sukooran cant ak si xalaat borom biil mu ban mbir ma ma nekk ku ñu teeyal bi kutubin ci samay téere wo bi balat ak ci sama dëkk mu ne yàlla danaa ko sant diirug jamono cant goo xam ne ki koy def dafay sax cant gi di sax sëñ bi ba léegi mi ngi cant yàlla mais cant mi cant yàlla ba léegi day sax mu ne nag cant googu may cant yàlla yàlla def na ma ma nekk koo xam ne samay téere yëpp yàlla teeyal na ko sama dëkk itam yàlla teeyal na ko bépp téere boo ko kooku mooy kutub bi balat nag mooy réewam rek muy Sénégal waaye mooy dëkkam rek man nga ne moo tax ma ne askuruhu danaa ko sant addëhre diiru jamono su ko rëcc xalaat cantu koo xam ne borom sax la. maanaam kii sant ci boppam daf fii sax du faatu mu taye bin mbir moom ma nekk ku ñu teeyal bi ku tubin samay téere yëpp wa ak sama réew yàlla teeyal na samay téere yëpp waaye réew mi ma nekk itam yàlla teeyal na ma fi. Sabba joñ na li xëyri mu jëm ci furun man xadda ban mer ma xaddalaal ànd ak réer man yàlla mi nga xamee ne kaana nekkal na lii ñal ma bi xalaal ci yu dagan yi bilaa xisaabin ci lurun mu may xisaab lépp luy mer mbaa réer melokaan yi jukku yi yëpp nga xam ne benn baaxul ci muy mer ak réer yàlla dàq na ko mu jëm ci fudut man du ma réer du ma wàcc lu tar lu toll ni tarfatulaa ni yoonu siraatal mustaqiim waaye itam du ma mer du ma mer du ma meral kenn dégg nga du ma mere kenn du ma jàppal kenn meer yàlla moom nga xam ne nag moo ma nekkal ci yu dagan yi lépp lu may soxla ci lu dagan rek yàlla defal ma ko te su ma ko defee de ba noppi duma ci réglé du ma ci xisaab du ko xool mukk dégg nga kon sabba joñ na li xayri jëm ci furun man xadaban lépp luy mer maxa dalal ànd ak réer man yàlla mi nga xam ne kaana nekkal na lii ñeel bi xalaal ci yu dagan bi laa isaabin ci lu mooy xisaab yàlla moom daal moo mosal ci ñaar yi muy réer ak réer muy réer ak mer. axastu jël na saakiran mbir moom mooy aji cant ko sama cër loxo ñeel ko. waxaamidaan mbir moom mooy aji ko sama xol ba tey loxo ñeel ko. xuttu woo mat naa ilay jëmee ci moom yàlla wax doo kottu almaxaamidaan mboolem xeeti cant yi. mu ne jël naa xeeti cant yi doomu aadama bi di cante yàlla ci ay cëram mbaa mu di ko cante ci ruuxam ak xolam yëpp jël naa ko jox ko suñu borom naka noon xeeti cant yëpp amut bi ak baa womat naa ko jëmee ko ci yàlla kott dégg nga moo tax ne aqatu jël naa loxo jëmee ci yàlla saakiraan mbir moop may aji cant ko nag ci samay cër waxaami daal di aji ko sama xol ak sama roo yëpp ba tey xuttu womat naa ilee jëmee ci yàlla ci gàttal daal wax doo moom kott almahamida xeeti cant yëpp lépp luy cat daal jibal naa ko yàlla madda tàllal na liye jox ma asitara sutura aljamila say aji rafet lil jinaan ba rek may tàbbi aljana wa tey ba teel teel na ci man an sa bakkan bi wa tey ba teel na ci man aljinaan xol bi yàlla muur na ma lu ñuy wax malaanu sutura yàlla sutura moo rafet yàlla ku muur sutura sa lépp rafet sa dara du ñaaw mu ne yàlla nag def na ma malaanu sutura muur na ko sama kaw ba rek may dugal aljana sama bakkan yàlla teel na ko mais sama xol yàlla teel na ko naajeytuhoo di yente nag moom wa qabila ta nangul na ma atanaajiyaa di yente gi mus diirub xaada wa mata lii jëme ci man maa kuntu lépp loo xam ne nekkoon naa raajaa di di ko aji yaakaar minu ca moom yàlla communiqué naa ak moom bu doon bu doon waxin nga ne sëñ bee ko woo xam nga bu ne naajaan ya ci waxin nga ne yàllaa ko woo bu ne naajeytuhoo na sëñ bee woote dégg nga xam nga léeg ngay woo nit mu bañ laa découragé bañ laa jël te xam na numéro bi xàmme na ko waaye dalaa sëriñ bi nee ne bi ma diyanteeg yàlla woo ko téléphone ci gàttal yàlla ci boppam dafa jël appel bi ñu ne ko loolu loolu moom kañ la mu ne bi nga xam ne la ma doon yaakaar ci moom yëpp jox na ma ko boobu laa gën a communiqué ak moom rek mu mu mu mu mu découragé li ñuy tuddee appel bi. moo tax nag naa jeytoo diyante nag ma wax xabila te nangu na an tanaajiya diyante ga muy wax di ma jox ma di ko wax di ko jox ñu ne ko loolu kañ la mu ne mus diirub xaada woo mat na lii jox ma maa kuntu lépp loo xam ne nekkoon naa raajaa di aji yaakaar minu ci yàlla Sëñ Tuubaa ne la ma doon yaakaar ci yàlla rek yàlla na ma ko. asaluhu ñaan naa ko moom yàlla subhaanahu tudd na mag sellam. insiraafa ak wëlbateem ah daa ii noonam li xëyri naa mu jëm ci ku dul ñun. dégg nga mu ne yàlla ñaan naa ko te maa ngi koy ñaan di ko sori lépp loo xam ne yellut ci moom. lépp loo xam ne mustahil la rek maa koy dàqal di ko sëril li ma koy ñaan lenn la nag mooy ay nooni boppam te nooni boppam muy nooni yàlla mooy noonu seriñ bi moo tax mu ne ko li may ñaan mooy moom yàlla comme moom moom yi di ma sonnal yàlla na leen wëlbati jëm ci fudul man waaw. moo tax mu ne as aluhu ñan naa ko moom yàlla subhaanahu tudd na mag sellam sërilal naa ko lépp lu yellu ci moom. li ma koy ñaan mooy insirafa ak wëlbati ahdaa ihi ay nooni boppam le xayrina mu jëm ci fudul ñun sëñ Tuubaa ixtirafa akuk d'accord d'accord mooy nangu mooy koo xam ne dafa nangu dafa saxal ci boppam maanaam dàq ñi nga xam ne suñu borom dàq na ko ñoom noonu yëpp dañ koo nangu mooy taxuñ bi leen yàlla dàqee ñi sëri sëñ Tuubaa mooy taxuñ dañ koo nangu moo tax mu ne ixtirafa akuk nangu akuk d'accord lam yan xuni jubluhun ma bi fadlihi ci ngëneelam kafoor way weddi ña bi dara di ma lor si lam yen xuni jubluhun ma ba tey nafooru way foñña mu ne ci mbaaxug yàlla ñi ñuy tuddee kafoor ñi nga xam ne dañoo weddi waakoon xéwlu suñu borom dañoo weddi suñu borom ci seeni cër ak seen xol seen lépp nee na lor yañ ma bëggoon a teg lor yoolu ci boppam ci mbaaxug yàlla jubluun ma mooy loruñ ma rek. naka noonu nafoor ñi ñuy tuddee ñu foñ ñoo xam ne loo leen waar-waar du tax mukk ñi bëgg la du tax mukk ñi sopp la du tax mukk ñi dugg ci diini ji mu ne ñooñee ba tey seen lor jublu ñaari kuréel yi moo lam yan wu ni jubluun ma ba ma nekkee ci géej ga ci ngëneelug yàlla kafoor wooy weddi ña bi dara di ma lor si maanaam seen lor yi jublul ma lam yan wu nii ba tey jublul ma nafoor woy foñ na woy foñ. xabastu tëj naa iblisa iblis bi rabbi ci kàttanu sama borom. xan jamiix mu wëlis mboolem ma la nga xamee ni ixtaaroo tànnal ko lii ñal ma. almuxri bi yàlla muy aji jege ji asamiix tey aji dégg ñaan ji. mu ne iblis maa ko tëj ci kàttanu sama koso nga ne tëj man du ci coob rek sama borom la mais bu ci yàlla àndutoon mënuma tëj iblis iblis amul kenn ko mën a tëj te yàlla seetaan la ak moom. jàmm boo mën a doon yónentu ngaak xutbu samaan ngaak aqtaam ngaak koo mën a doon rek kasaalika ñoom ñëpp ci amul kenn ku mën a tëj iblis te neexut yàlla. kon ci kàttanu yàlla rek nga mën a muslu yàlla musali ci iblis moo tax ne tëj naa iblis ci kàttanu sama borom bam sëri lépp lu ma yàlla tànnal ndax toujours nit ki iblis li muy am soxla ci yàqu mooy li yàlla tànnal jàmm bi del julli del woor dal natt asaka day ko defee ni ko yàlla bëggee loolu yàlla moo ko tànnal jàmm bi pour mu di def léegi nag dégg nga dal lekk xalal ju dagan iblis nag ñëw na gëmloo ne xalal ji dafa lënt lekk ko dégg nga lu la neex rek liggéeyal lu la neex rek euh, xoolal ni la neex rek bul xool alal ji dafa dagan ak nangam nu la neex rek fexeel amee ko alal yow di itam ga gëm ci sa xel ak sa xalaat ak sa xool fexe ba noo amee alal rek baax na te yàlla yàlla tànnalu loolu moo tax ne bi ma tëjee iblis li ma yàlla tànnal yëpp iblis mënu ci dara yàlla moom nga xam ne mooy al bu mooy aji jege ji nga xam ne képp ku koy ñaan dégg na la moo tax ba tey mooy asamix mooy aji dégg ñaan ji te ku ko ñaan itam mu jege ñan la boppam nangu la sax ñaan xulubu jumlati hidaya xoli mboolem samay noon surifat wëlbatees na leen li xayri ma yesu uni ñi jëm ci lurut li may naqar yi fan sarafat te ñu nangoo wëlbatiku mu ne samay noon ñëpp seen xol wëlbatiku nañ jëm ci fudut man mooy lépp loo xam ne nag mën na maa naqari te mu nekk ci seen xol ñi ëmbal ma ko loole yëpp suñu borom wëlbati na ko mu jëm ci furut man te ba mu ko wëlbatee nag dafa nangoo walbatiku ko xuloobu jumlatee day daay xoli mboolem samay noon surifat wëlbatees na leen li xayri ma ñi jëm ci lurut la nga xam ne yeesoo uni dafa may naqari fan sarafa tamu tañu nango walbatiku ndax nit ki lor gi bàyyi ko ci moom di ñëw ci yow ci xolam lay nekk dégg nga xuloobu jumlati la ci na xoli mboolem ña nga xamee ne af loxoo texe nañ maaloo ñoom ñëpp jeng si nañ li nusriti ñëw di ma dimbali si. wara bii te gëj naa ci sama borom ne almuslihu mooy aji yiwanal seen xol ya mu ne xol mboolem ñi texe ñoom gis nga fee ñi texe di la mooy xol ay noonam ñoom ñëpp suñu borom musal ko ñoom mais xol yi ñi nga xam ne dañ koo bëgg texe te yàlla tax bëgg ko te yàlla tax képp ñoom ñëpp texe nañ. moo tamit nag xol ñi nga xam ne texe nañ ñoom ñëpp jublu nañ ñëw di ma dimbale kon koo dégg ñu ne jublu suñ tubaab bëgg ko rek baa mu topp ko rek ku mu mën a doon rek déggee ci na texe na bu lijjanti ay mbiram lu mu mën a doon dem bëgg na sëñ Tuubaa rek xanaa ku laal ko jàppal jàppe ko comme sa bopp rek waaw leen nag sunu borom la waaye xol ba moom comme bëgg na sëñ Tuubaa rek jàppal na ko texe la waaye ku mu mën a doon itam lu mu baax baax dem xol bañ na sëñ Tuubaa rek dégg nga bul jàpp ne ku texe la ku texee di la. moo tax mu ne xol yi mboolem ñi texe jeng nañ ñëw di ma dimbali si dimbali sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko koy dimbali kuy dimbali sëñ Tuubaa lislaam ngay dimbali yàlla ngay dimbali di waaw yaa na lazina aamanu in tansurullaha yansurkum la yàlla wax yéen ñi gëm bu ngeen dimbale yàlla yàlla dimbale leen xam nga yàlla moom soxlul ku ko dimbale mais dimbale yàlla dimbale sa bopp la ndax loo def rek tabaarakallaa benn hakim daraan wax ne nee na yàlla dane def leen def leen joxe leen joxe leen gaa yi bañ na an yàlla ci am na anfiqu mimmaa razaqnaakum anam bu ne waxee na ko yalla naan joxe leen yéen bindee fi gaa yi lànk na cell mel ku ko déggul yàlla ne kon lebal leen ma boog in tuxridoo laa qad ahsanaa moo waral loolu nee yàlla dafa wax dafa wax dafa wax ba nga xam ne nit ñi kenn déglul ko mu ne in tuxru laqad ko lebal leen ma bëgg ma fay leen gis nga ko. léeg-léeg nga nga nekk nit ki naan ko may ma may ma may ma saa boo ko ñaanee mu bañ nga ne ko waa lebal ma mu lebal la yàlla nee lebal leen ma saan moo tax mu ne xulóobu jumlati la siina xooli mboolem gaañ nga xamee ne af loxo texe nañu maaloo jéng nañ li nusrati ñëw di ma dimbali si te mooy dimbali diina wara bi te gëñ naa ci sama borom ne almuslim mooy aji yëwnal seen xol ku topp sëriñ tubaa sa xol dana yéwén sa xol dana jag te xol mooy lépp bu xol bi jegee xolu mbindeef bi lépp lépp jag moo tax sëriñ tubaa li ko tax a ñëw mooy xol yi xol yu yàqu yi la ñoo ngir defar leen alhamdu mboolem xeeti cant yee ñeent lilay aji sax la ñeel yàlla alati yàlla mi nga xamee ne xadaana gind nañu li diini yi ci diinam ji nga xam ne al islaami mooy islaam musu diirub xadaana jubal nañu ñoo ngi sant yàlla daal yàlla mi nga xamee ne daal moo ñu gind saxal ñu ci lislaam duñ xàmmee daal yàlla saxal ñu ci lislaam loolu ñu ngi koy sant yàlla ndax loolu kenn mënu koo sant yàlla dëgg-dëgg cant nga judd ci lislaam faatu ci lislaam dekk ci lislaam dugg aljani ci lislaam loolu kenn mënu koo sant yàlla bokk yi moo tax mu ne kon alhamdu cant yëpp li laay ñeel yàlla ala yàlla mi nga xam ne hadaana gindi nañu li diini ci ci diinaan ji nga xam ne al islaami mooy islaam mus diirub hadaana jub nañu mooy biñ juddoo rek ci gàttal loolu mooy musadana ci lañu yàlla gindi ñi sax ci islam biñ xamee rek ci lañu yàlla tabaarakallaahu saxal ci lislam biñ xamee rek lañ xam ne ci lislam lañ judd ci lañ màgg ci lañuy faatu kon loolu mën nañ koo sant yàlla lam yent yuy jubluhut asaku sikk sàkk li xal bi di ñëw ci sama biir xol waxarab ta daw na waxiit li xëyri na jëm ci furun ñun allah na ka ñu rëbb ko di iblis xataan ci lu dog waktarab waktarab aku njàqare mu ne sunu xol sikk sàkk du ci du ci dugg mukk sunu xol daal sikk sàkk jubluut ko te ka ñu ko di Iblis daw na jëm ci feneen fu bokkut ak ñun Sëñ Tuubaa ci lu dog ci lu amul benn werante ak lépp lu njàqare ba tey daw na jëm ci furut ñun. lam yan fu ñuy jubluut ak sakku sak sàkk li xal bi ci sama xol wa xarab te daw na waxiit li xëy ci furut ñun allah aynu ko ñu rëbb ko di Iblis xat an ci lu dog wak tarab ak njàqare ik tarab mooy mooy mooy xusnu rek. Muhammadun Muhammad salaa yàlla julli alayhi ci moom bi salaamin gu ànd ak yàlla moom mi nga xam ne xaada womatal na lii ñeel ma bi jay ci dara jaay Muhammad alkalaam alquran nee na Muhammad yàlla yàlla julli coom jullu gàndugog sëlmal yàlla mi nga xam ci dara jaam ci la ma xomatalee alkalaam mooy alquran alquran kalaam la gu dégg nga mu la mi ne laay wax la ju tukkee ci yàlla kalaamun qadimun la mais laa yumalu samaahu tanasa an qawlin wa fi'lin wa niyati kon sunu borom ci dara jaay yonent bi ci la ma womatale li ñu tuddee kalaam muy alquran xostu danaa muslu billaay ci kàttanug yàlla min iblis ci iblis sarmada faw abdan mbir ma ma nekk ab jaam la ci yàlla saa xidmatin di borom liggéeyal li ahmada ñeel yonent bi di ahmad nee na maa ngi muslu ci kàttanug yàlla mu musul ma ci iblis faw waaye ma sax dàkk nekk jaamab yàlla bu koy jaamu nangoo nekk ab jaamam rek yàlla nekk sama sang waaye di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mi nga xam ne mooy dégg nga mooy ahmad saa xidmatin mbir ma may borom liggéeyal li ahmada ñeel yonent bu ñuy wax ahmad mu yonent bi sallallahu yeesooku dana màng jumlata xedaaw mboolem noonam ba allahu yàlla li xëyri duri ñu jëm ci fudu di ma lor si neex ma baax na rabbi sama borom moom nga xam ne allahu moo yàlla nee na mboolem ay noonam moom yàlla dana leen màng ñu jëm ci fu di ma lor xam nga noonu sëriñ bi waxoon naa la ñooy noonu yàlla yi mu ne nag sunu borom dana leen màng ñu jëm ci fudu di ma lor si mënuñ ci man dara est-ce yàlla mi def loolu baax na ca dëgg-dëgg moom rek moo yàlla nafaytu dàqee naa billaahi ci kàttanug yàlla dégg nga nafaytu dàqee naa billaahi ci kàttanu yàlla taala moom mi kawe ji duri samak lor ilaa si waaye mu jëm ci fudun man fa isan mbir moom mooy aji tuufu bisiri ci mbóot mu ne man ci sama bopp ci kàttanu sama borom ci laa dàqee bépp lor bu nekkoon ci man bépp lor boo xam ne rek dafa nekkoon ci man ci kàttanug yàlla ci laa joggi ba daq ko mu jëm ci fudun man waaye nag tuufu naa mooy gañe na mooy am na mbóot moo xam ne yàlla xamal na ma ko yàlla may na ma mbóot tuufu naa ca moo tax mu ne na fay tu dàqee naa billahi ci kàttanug yàlla du man taala yàlla mëpp kawe na lan nga dàq mu ne duri samak lor amatuma benn lor ila si waaye muy jëm ci fudut man nag amatuma benn lor fa isan mbir moom may aji tuufu may aji gañe may aji am bi siri lu ñuy tuddee mbóot yàlla defal na ma mbóot moo xam ne kenn du ko xam kon gis nga ko xasida gi lii yëpp mu ne xaasa minal xaqil kon loo dégg ci xasida gi ñu firi ko ci rek tabaarakallaahu lépp yàlla ko ko wax loo yàlla ko ko def loo bu xam nga nit ku jékki-jékki ba yàgg ne sama taal yëpp texe nañ nga naa waaw kii moom lii ko teg mu ne la yàlla ma ko wax loo xuloo bu jumlat la ci afloo maaloo li musliw ni ko jékk ba yàgg ne sama noon ñëpp texee dinañ nga ne waaw kooku moom ko teg mooy kan daf di yàlla wala ab yonentoom nee na loolu yàlla ko ko wax loo kon loo gis mu wax ko ci xasida rek jàppal ni suñu borom tabaaraka taala moo ko wax loo xaasaa rek minal xaqil bin te waxee sëñ Tuubaa nag fa man saa afal yumin wa man saa afal yakfuri boo ko gëmee mu nekk yiw ci yow nga jëriñu ci àdduna ak ko weddee mu nekk aw xay woo xam ne dana lor ci àdduna ak alaxira yëpp ba tey mu defaat geneen xasida gu mel noonu ba tey gii mi ngi ko tënkee xaasa minallahi laa ba fiihi li may wax ci xasida gi ba tey mu ngi bàyyi ko ci yàlla sikk nekkut ca am nga di nga déggee moo tax waxi sëñ Tuubaa moog alxuraan benn rek lañ alxuraan lépp nga bàyyi ko ci yàlla mais xasida yi itam bul fàtt lépp nga bay ko ci yàlla waaye mbir la mu naq di gëm nag ndax koo xam ne dafa bind ay xasida na lii mu ngi tukkee fa yàlla ah te lu maanaam luy naqari gëm la ah, waaye nag ku yàlla defal tawfiq rek mooy mën a gëm loolu yàlla ñu yàlla boole ci ñooñu xaasa minallaahi laa rayba fii lii boo ko waxoon ci pénc mi suñ tubaa ne xasida gi ci yàlla bay ko dana am ñu ko weddi alquran na boo ne ci yàlla bay ko ñi koy weddi dana am waaye ñu niw te ñu xamul rek waaye fu ne boo xam-xam bi gën a mag boo ne koon xasida gi ci yàlla bay ko mu weddi la borom xam-xam bu a rëy koo xam ne dañ na ci ak ci yàlla bay ko mu weddi ko loolu may yàlla la bismillahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewlaa kon ñëpp ci àddina arrahimi buur ba di aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ala ali ak ñoña wasama bi ak saabaam yëpp wasalama tumu dolli ko musal tasliman dolli musal xaasa xasidi gii nag mi ne laay mi ngi bàyyi ko ci yàlla laaree ba di sikk fii di ci nekk ci wax gi ma ko wax mu maa ngi tàmbali ci turu yàlla yàlla muy xéewlaa kon ñëpp ci àddina yàlla mi nga xam ne mooy aji yërëm ku ko soob ci àllaaxira maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang turam di Muhammad yàlla yàlla julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp te ko musal moom yonent bi xasidi gi amul sikk sàkk ne nga bàyyi ko ci yàlla xaasaa xasidi gi ñu naan mu ne mi na laay de ma nga bàyyi ko ci laaree ba déet sikk fii di ci nekk de waaw ndeysaan nag ba tey kon lépp lu wax ci xasidi gi rek jàppal ne lu ko yàlla defal na ko wax lu ko yàlla wax loola lii ay discours la rek yi muy wax li muy wax ak nit ñi gindi nga ma ah day te nii gindi nga ma fal tax di kon nag yàlla nga gindee bii ci sama jëmm ji alxayaala njaboot gi wal tag fi naa yàlla nga nu fegal alxukaama way xàtt ya wal aq yàlla ak buur ya mu ne yàlla gindi ma ba noppi wala sax dana koy wax ku gindeeku ku jub ku ne ku ko topp jub kon sëñ bi toujours ni ko yàlla def day wax yàlla ñi nga xam ne ñoom la boot yàlla gindee leen ci moom bi'da ayaali bila bukaay i tahaali bila irtihaali bi'da ayaali bila bukaay sama njaboot na nga leen gindee ci man lépp lu ñuy wuti nañ ko nañ ko amee ci man bu kenn jooy bu kenn jaaxle waaw ah, moo tax mu ne ko yàlla gindi gi ma ba noppi kon nag sama njaboot lool nag mooy taalibeem yëpp waaw ah, na nga leen gindee ci man. taalibe Sëñ Tuubaa du ragal xattekat yi taalibe Sëñ Tuubaa du ragal buuri àddina yi buuri ci boppam ñoo koy ragal xattekat yi ragal ko mais du ci ragal kenn wala tax fi naa yàlla nga doon fegal alxukaam wooy xatt wala ak yàlla ak buur yi xattekat yeeg buur yëpp musul ci ñoom ndax ñoom ñëpp ak loraange rek lañ yor. ixdi yàlla na nga gindi jami xanaa ñun ñëpp asiraata teg ñi yoon wa al mustaqim wa daa ji jub wal tax mi naa yàlla nga nu xaar xamaa yoo di walis lépp loo xam ne daanu ñuy eggale li saxam jimi ñi ci ak ràgg-ràgg yow sunu borom yàlla nga ñu gindi ñun ñëpp sama njaboot ak ñëpp jullit ñëpp teg leen ci yoonu siraatal mustaqim mooy yoon wu jub yoon wi nga xam ne moom nga bëgg ñëpp jaar. yàlla nga nu nag ba duñ jëm ci yoon woo xam ne bëggoo ñu jaar fa xamaa yu di li sëqin sëqin xam nga ñu ko waxee mooy ràgg nit ku ràgg waaye niki ki su jaaree weneen yoonu bokk na yoonu siraatal mustaqiim dañuy jàpp ne sëqim nga mooy yoon wa nga jaar ci boppam dafa ràgg yow mu fa jaar da ngeen ràgg yoon wa dafa feebar yow mi fa jaar da ngaa feebar moo tax mustaqim safaana mooy sëqim gis nga ko mustaqim mooy wu jub mu ngi tukkee ci istiqaama koo xamee ni jub na kocc sëqim nag mu ngi tukkee ci saqama goo xam ne day firi ni ku tawat koo xam ne dafa ràgg biiram ràgg na biteem ràgg na yoonam jaar ràgg na moo tax ne wol tax ma ne yàlla na xaar amaa yu di walis lépp loo xam ne daanuñu eggali li sa xam jëmee ci ràgg-ràgg maanaam jëmee ci yoon wu ràgg rek li sa xam jëmee ci yoon wu ràgg. saaliko loolu ma la ñaan nag xay nun aji yomb la alayka ci yow ya xasiis yow muy aji not ci sa kattan wa innahu te naka loolu kat lay sa déet bi xasiis muy aji jafe alayka ci yow. yàlla loolu ma la ñaan te mooy gindi ñi teg ñi ci yoonu siraatal mustaqim man sama njaboot ak jullit ñëpp ñi musal ñi ba buñ jaar weneen yoon buñ jaar weneen yoon wurut yoonu siraatal mustaqim mu ne ko loolu nag lu yomb la ci yow mooy mooy nga gindi ñi rek teg la ci yow yow mi aju not ci sa kattan te loolu wa ma saalika ala lay bi asisin alquran ko wax wa innahu laysa alayka bi asis loolu ma la ñaan yow yàlla mooy nga gindi ñu teg ñi ci yoonu siraatal mustaqim yomb na ci yow ba noppi te itam jafewut ci yow waaw waaw yàlla dara jafe ko lépp yomb na ci moom jaam bi mooy bëgg dara rek defe ne lii lu jafe la waaye amul lenn lu jafe fa yàlla soo ko ñaanee rek na nga ko war a ñaanee dox jëm ci rek suñu borom jàpp na la ko su fekkee moo gën ci yow. asib dàq nga bi saati saatika ci kàttanug sa jëm jëmm alkarima jadi aji tedd li xëyri naa mu jëm ci fudun ñun alxeda suñuy noon wasit yàlla na nga yàlla na ñu dolli takrima say tiranga yàlla ci sa kàttanug jëmm ju tedd sa jëmm joo xam ne jëmm ju tedd la jëmm ju màgg la ci nga dàqee mu jëm ci furut ñun képp koo xam ne sunuy noonu la waaye tiraanga ji nga def ci ñun yàlla na koy saxal di ko gën di dolli dégg nga madata tàllal nga madata tëbu nga liy jox ma al imaana gëm yàlla ku dëgër wal islaama ak islaam wa ahsanal ihsaani ak gën kaa rafet ci ak tasuuf muy ak rafetal laama laama tëddeetug ya daange mukk di ci am yàlla nga ñi imaan tëbb ñu islaam ak ihsaan ga ci gën a rafet tëbb nga ñi masalan tawxiid tëbb nga ñi masalan fiq tëbb nga ñi tasuuf te benn bu ci nekk ba ca gën a matale ba ci gën a rafet sunu imaan yàlla duñ ci yedd mukk sunu islaam yàlla duñ ci yedd sunu ihsaan yàlla duñ ci yedd ndax bul fàtte ne yii yëpp nit dañoo ko am te bu yemal xayaame benn bu ci nekk danañ ko ci yedd booy xool safara ña fa gën a métti mbugal bokk na ci ñi nga xam ne ay jullit lañ rawatina borom xam bu jéng te borom xam-xam loon loon amoon na imaan amoon na islam ihsan waaye ñëy dafay bokk ci ñay njëkk dugg safara te gën caa métti moo tax borom xam-xam bu jéng dara jaru ko yàlla na musal moo tax ne ko maddata tëbb nga mooy tàllal nga liy jox ma al imaana iman wal islaama ak islam wa ahsana ak gën kaa rafet ci ak rafetal muy tasuuf laama laama te diitug yeddaange naafiya yow muy aji jëriñe ji in faxe jëriñal in faxe na nga jëriñe bii ci sama jëmu ji alxibaada say jaam al muminin ña way gëm wal muslimiina ña da way womat seen lépp jébbal la ko wala ibaada ak say jaam al muhsiniin ña da way rafetal jëmee ci yow te yàlla tax yàlla yow miy aji jëriñee ji ku am njëriñ yaa ko jox ci yow rek la bay ko kon sa jaam ñi nga xam ne mu'miniin lañ ak sa jaam ñi nga xam ne muslimiin lañ ak sa jaam ñi nga xam ne muhsiniin lañ ñi am imaan am islam am ihsaan waxut murit ñi de ñëpp na nga leen jëriñee ci man kon ñëpp sëñ Tuubaa la ñuy jëriñoo ku gëm yàlla rek ci sëñ Tuubaa nga mën a jëriñoo sëñ Tuubaa mooy jëriñekat bi loolu nag yàlla moo ko def naafion bin faxe yàlla moo ko jëriñ ba noppi na ko léegi ku may jëriñate ci sa daraja ci laa koy jëriñee ci sa jëmm laa koy jëriñee irfaxan irfax na nga yëkkatee bi ci man alkitaab alquran wala xoloo ma ak xam-xam yëpp a naafixaat yi di way jëriñe xut na nga womatal lii ñeel ma ak taxlima ak jàngale yàlla alquran na nga ko yëkkatee ci man ba laal suuf xam-xam yi nekk ci alquran ak yeneen yu dul alquran yëpp na nga ko yëkkatee ci man xam-xam yu jëriñe laa wax nag bu ne wala la mooy mboolem xeeti xam-xam yi jëriñe moo xam téere gaa yu baaxee la ca nekk yëpp tey jëriñe seen téere yooyu bu nekkee bu demee ba am waloor yëkkatiku kooku njaarama Sëriñ Tuubaa waaye mu ne jàngale mi may def yàlla dégg nga na nga ci teg loxo mooy nag ma def man nekk koo xam ne daal ab jàngalekat laa te itam jàngale mopp na nga ci teg loxo dugal ci barke. moo tax mu ne ko irfax na nga yëkkatee bii ci man alkitaaba téere bi di alquran wala ulama ak xam-xam yi nga xam ne anaafiaati way jëriñe lañ loolu mooy yeneen téere yi gars yi baax yi bind yëpp rek ci gàttal xam-xam buy jëriñ rek da nga ko fekk ci kër sëñ Tuubaa xut na nga mata lii ma taxalima ak jàngale mooy sama jàngale na nga ci def barke kon sëñ bi métier moo doon jàngale laka ñeen na la yow kottu kottu taw a joxtu sama jublu bi xal bi ci sama xol wala jasad ak yaram bi fal tax mi naa yàlla nga nu xaar xan kulli xaasidin walis bépp aji kañaan joo xam ne xasad dañu feeñal ak ak kañaanam xasad koog dana feeñal ak kañaanam yàlla sama xol yow rek laa koy jox sama yaram yow rek laa koy jox kon nag képp koo xam ne dafa kañaan ba mëntu téye kañaan ga mantu nëbbu kañaan ga waaye da koy manifester di ko feeñal yàlla xaar ñu musal ci kooke wa min sëri xaasidin isa hasada laka ñeel la ba tey jaxaltu def naa laka ñeel la diine ka sa diina al islaama te mooy islam wa diatan mu nekk ak dénkaan fal tak fi naa yàlla nga nu fegal salaama lépp luy tooñaange yàlla kat sa diini ji nga xam ne mooy islam jël naa ko dénkaat la ko ndeysaan yàlla ko moom mu jël ko dénkaat ko yàlla lu koy jural yàlla téyel ko ko kenn ku nekk diine ju nekk ci yow ko war a dénk yàlla soo ko dénkee yàlla yàlla téyel la ko mu ne musul ci tooñ ndax koo xam ne diine mi ngi cee war a a war tooñ moo tax ma ne ko jaaltu def naa lakka lakka ñeel la diine ka sa diine ji nga xam ne al islam mooy islam waa diinaatan mu nekk dénkaan ci yow te diine ji moom la ko yàlla dénk moom sëñ Tuubaa jëlaat na ko jébal ko yàlla sëñ Tuubaa ko yàlla may jëlaat na ko ko yàlla sëñ Tuubaa ci waxin boo doon wax nag naan xamul dara loo gis muy sant ak nangam yëpp da koy delluwaat ci yàlla xéewalam yëpp da koy joxaat yàlla kon nag fal takfinaa yàlla nga nu fegal asalaama lépp luy tooñaange ajib yàlla nanga nga nangu sunu ñaan yëpp bi laa di ci lurut delloo wala taaxiri wala ak yéexi wàccal ni yàlla nag ma def hendak fa yow suróoral xiyar yi may mbegum tànneef yi mu ne yàlla lii ma la ñaan yëpp dama bëgg nag nga def ko ca sansa te bul ko delloo bu ko ñàkk nangu te itam boo koy nangu bul toog fan wala ñaari fan wala xat wala weer bu ko yéexee bi laa rëddit mooy bu ko delloo bu ko ñàkk nangu mais wala taaxiri mooy bu ko yéexee na gaaw rek ajib na gaaw jooni jooni waaye nag nang ma def fa yow ma nekk mbégum tànneef yi nga boo demee fa yàlla Sëriñ Tuubaa moom tànneef yëpp dañ koy bégee dañoo bég ci moom. xaab yow yàlla na may lii ñeel ma ijaabatan ak nanguk ñaan bi hurmatil amin ci xormay ka ñu wóolu ko di yonent bi wa hurmatil amin ak xormay ku ñu wóolu ko di jibril rabbil alamin yow yàlla mi borom bi defi laa koy ñaan yàlla nag ma may ijaaba mooy nag ma may ijaaba wuyu ma ci lépp lu ma lay ñaan nangul ma lépp lu ma lay ñaan ci xormaay ko ñu wóolu ko di yonent bi ak xormaay ko ñu wóolu ko di jibril ki ma koy ñaan nag mooy yow mi nga xam ne yaay borom bindéef yi jaaltu def naa laka ñeel la sikra ka satir bi di alquran alxakima ba de buñ xereñee ci sol lu fàddu wa diixatan mu nekk dénkaan ci yow mus diirub xutta womat nga dégg nga womat nga lii jox ma attankima lu ñuy tuddee xatte ba mu ne yàlla a ah, sa téere bii di nga xam ne danga ko xereñee ci sollu fàddu jox naa la ko mu nekk ak ndénkaan nga xam ne kon ni ko yàlla joxe diine lislaam mu nekk ci ay loxoom da koo jël dénkaat ko yàlla waaye ni ko yàlla joxe alxuraan da koo jël jébbalaat ko yàlla. mu ne bi nga xamee ne womatal nga ma rek taxkiim muy xàtte yàlla def na ko mu nekk ab xàttekat waaye xate na ko digganteem ak ay noonam yam ko sequtoon yëpp ba mu mucc seeni pexe ak seen ñaw ñaw moo tax mu ne ko jaxaltu def naa la ka di alquran alxakima bare buñ xarañee ci sollu faddu wadixatan mbir mu nekk ak ndénkaan fa yow musu diirub xuttoo womat nga womat nga lii jox ma attentiment lu ñuy tuddee xatte aw daxtu ko dénk naa la al ummata ummatu muhammad muy xeet wi fak fi haa yàlla nga nu fegal arukoonu jeng li saalimini jëm ci way tooñ ya xab na nga may lahum ñeel leen fii ka ci yow asukoon dal mu ne waay waay xeetu yonent ba tey jox nga ma yow yàlla waaye dénkaat naa la ko yàlla nga ñu musal ñiy jeng jëm ci yooyu tooñ ya way tooñi buñ jéng ñëw ci ñun ñu nit waaye ñoom it buñ jéng jëm ci ñoom kon nañ màndu ci ñoom rek waaye xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëpp na leen may ci ak dal suko ko waxee nag mooy ña ña nekk ay julli rek la ci namoo ndax li saale tooñ yi ba tey ci xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam lañ bokk waaye ay tooñkat lañ kon ñi nga xam ne nekkuñ ay tooñkat dénk naa la ñëpp na nga leen musal ñiy jéng nag jëm ci way tooñ ya waaye nanga leen may ak dal ci yow moo tax mu dénk naa la al ummata xeet wi fak fiha yàlla na nga leen fegal arukoon a jéng fak fiha yàlla na nga leen fegal arukoon jéng li saalimiina jëm ci way tooñ ya mboolem xeet wi yëpp lépp loo xam ne tooñ la wala ñi jëm ci way tooñ ya yàlla nga leen ci musal xat nanga nga may lahum ñeel leen ñoom xeet wi yëpp fii ka ci yow asukoon ak dal boo déggee dal mooy dëkk boo xam ne wala réew moo xam ne dafay dal am naat kenn du tiit kenn du jaaxle kenn du fërfëri duñ fa nekk di xalaat xalaat yu métti maanaam dafay dal daal mu ne xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga leen may ak dal ndax safaana mooy rëng-rëng ak ay musiba te loolu baaxut ci aw xeet baaxut ci rew baaxut ci dëkk. moo tax nag mu ne ko dénk naa la xeet wi kon nag ñoom xeet wi nanga nga leen musal ñiy jéng jëm ci way tooñ ya waaye ñoom xeet wi ba tey na leen may ci yow ak dal.